non en fait si on attaque, mais xam nga faire mariage c'est dafa xaw compliqué des fois quoi comprends man damay quoi mais non il faut xam nga pareil aussi des fois da ngay da quoi compliqué quoi Moi, mère oncle bi may comme quoi 14 ans quoi Idi 14 ans là, non <laughs> non defe naa ren moom 15 ans la quoi mais ma ne ko moom bëgguma quoi bëgguma <laughs> mais amoo problème yooyu quoi incha allah su ma gisee suba sama takk.